asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 16 septembre 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi suñu làmb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki yëglikaay bi nga xam ne suñu lamb moom fu mu xëy tey ñëwati moo ci diggante Tapha Tine Pape Thialis ak la nga xam ne nii moo di coow la mu mel ni ki nag tey moom ginnaaw ba nga xam xamee ni waa écrit ba génn nañu wax ka nga xam ne mooy Elas Thioune génn wax mbay ndawaan may tàggat tafatin génn wax daa mel ni tafatin nag tey moom daal loo ci mën a dégg daal moom daa mel ni moom moo wax wala boog daal la mu xam le nee na daal li am ba des daal ne na jàpp na ne fan yi di ñëw moom moom ma ñu war a dégg moom des na ko dégg ndax tafaa nag la mu xam le moom ne na mbir yi ñëpp ñu ciy coow yëpp ne na mbir mi nag mooy concerné bu a mag bi maanaam daal li li olof naan ndey mbil gi tafaa ne na moom mooy ndey ndey mbil gi ndax la ko waral ne na man maay dugg ci géew bi bëre kon daal ne na fan yi moom bu soobee yàlla lu yàggatul dara tafaa wane na moom wax des naa ko def wala boog des na ma dégg mel ni kon daal coow la fi mu nekk nii continuer na mu mel ni bu nu continuer ci coow loolu dañuy dem fa nga xam ne moo di record fekk fa la nga xam ne tamit mooy coow lu mel ni ki noonu mu mel ni ki diggante Pape Thialis Faye wala boog diggante Tafatine ak waa Leewtoo la ca dox daal mooy cinq millions yëglikaay ba xam ne ñu day moom la ñu jox Tafatine moom la bañ ne daal du ko jël maanaam cinq millions daal la dindi teg ko fële boole ca nag loo xam ne nii daal maanaam ay menace la yëglikaay ba moo xëy wax nu ko moom record de nee jàppal ka nga xam ne nii moo di Gris doo bàyyi na Gaston Mbengue Tapha Tine di menacé Leewtoo mel ni kon daal coow la fi mu nekk nii mu nga ne gadd moo tax record tamit dinu xam ne li am ba des daal boo sàgganee diggante booy Niang ak Tapha Tine nee lu war a mën a nekk la ba tey ndax nag coow yi fi mu nekk nii bari na lool ba tax na yooyu combat ñu fi déclaré woon muy Tapha Tine Boy Niang Gris Balla lenn lu leer amagu ci ba tey record tamit mu ngi toppal loola ñëw ci ñaari mbër yoo xam ne ñoom déclaré na seen i combat muy Balla Gaye digganteem ak Gris yëglikaay bi ñëw na ca ne na donte Gris Bordeaux moom waxoon nañu ba déggoo ak Gaston Mbengue ba mu encaissé xaalis kari Balla moom encaissé wul te pourtant day coow bariwu ca de kenn déggu ko mu wax ndax nag ka ca jot a wax kenn la muy ka ko yore di Aziz Ndiaye Aziz moo jot a wax te la mu xamle daal nee na ñoom coowu xaalis nit du leen ci dégg tey suba waxi noppi ñu ngi ngi wéy di déglu ka di Gaston Mbengue aju ci la nga xam ne nii moom la ñu wax ak ñoom nee na sax bëggoon nañ leen joxub xaalis boo xam ne du tolloog la ñu soxla waaye dañ ko ne daal nañ ko téye rek ba mu mat moo tax ñoom ñu nga toog jàpp seen bopp kër yi Modou Lo tamit mu mel ni mbir mu mel noona moo ko dal moom combat am njëkk a digganteem ak Ama Balde yëglikaay bi ñëw na ca xam ne ne ka nga xam ne moo di Modou ba mu daanee ama Balde ne ko ci kase boo xam ne mosu koo faye ko ci carrière am muy 90 millions ci benn combat record nu ko wax waaye nee ba nga xamee ne nag loola am na Ama moom encaissé na 25 millions Modou encaissé wul te teewul Modou day moom itam deful te itam jàppul waxul kenn ne ko aw ma combat yëglikaay ba xëy ñëw wax na ko yemu ca ne na Modou sax dégg nañ ko ci ay mu xam ne ne moom daal bés buñ ko nee bëree ne na bu keroogee moom pare na ngir bëre record mel ni ki noonu mel ni kon ñaari journal tey muy sunu lamb ak record ñëw nañ ci coow lool dañ fay ub loola coow nag boo xam ne nii daal mooy bangu ka xam ne nii mooy docteur ba nga xam ne moo jiite CNC ba ba mel ni ki nag yëglikaay la a seetlu Aziz 2018 ya nga xam ne nii la ñu woon mooy ab CRC pour région de Dakar waaye nee na mbir ma daal bañ ko waxee foofa ñu ko waxee daal fa lañ ko suule maanaam fàtte ko ba biig ca ngoon sunu làmb nu xëy wax lu mel ni ki doon ba tey bu ñu continuer waatee ci yëglekaay bi nga xam ne mooy waa arels moom ña nga xam ne nii ñoom la Malick ñi ngi jiite daal la ñuy xam ne daal ñoom mandaawu ñaareet daal lañ jàpp ne dafa doy ngir nag jiite làmb ji bii yoon loolu daal la xëy di ko wax Max Mbargane moom di doxalin yu bees maanaam daal texte yi daal la bëgg ñu yër ko bu baax a baax a baax ndax am na te yoo xam ne jàpp na ne nañ ko tegee doxul wala warut demee noonu ñu ko tegee kon jàpp na ne daal lees war a xoolaat la gii yoon Max Mbargane moo am boobu gis-gis keneen koo xam ne soriwul Max Mbargane moom dëkk fa nga xam ne moo ca caarooy muy rëg-rëg rëg daal que xëy di waxal muy guy gi daal mu ngi koy dànkaafu di rëg dana ko li am ba des daal xam naa say point fort xam say point faible te boo bëggee dégg dëgg moom yow sama digganteeg yow victoire kese-kese moo ci am waaye leneen moom bu ko ci xaar dan la képp-képp laay def loolu mooy waxi ka nga xam ne nii moo di rëg-rëg ci yëglikaay ba nga xam ne moo di sunu lamb yemu ca moom rëg-rëg nee na mu ngay préparé itam MMA ba combat MMA ba nga xam ne daal moom la war a jongante le 4 décembre daal rëg ne na maa ngi ca préparé bu baax a baax a baax rëg-rëg daal maanaam tey xëy na ngar daaju sunu lamb seq faak waxtaan ka nga xam ne moo di ibakan keneen koo xam ne nii moom itam ci lamb simple ji wala bokk ci lamb simple ak frappe ja la ne muy ka nga xam ne moo di franc digganteem ak waa ña nga xam ne ñoo di parcelle mbooloo nag daa mel ne fi mu nekk nii day ah, ba ñëw na ca loolu la ñu sunu làmb xëy ñu ca tamit lu mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer dañuy dem fa nga xam ne nii moom moo di ca sunu làmb wala boog ca tuus ya kan fay fekk mooy bébé xarañ ak ka nga xam ne moo di amical neneen boobu combat nag jamaïcain moo ko taxawal te fa mu koy tëgg nag du fenn fa nga xam ne moo di ca Gàmbi maanaam daal fa la koy tëgg ji moom jamaïcain beneen combat boo xam ne ni tamit ñu ngi ñu koy wan muy maam Balla ak ka nga xam ne moo di mbay guy gi waaye am na ñoo xam ne ba tey ca tuuse muy seen amateurs yi te góorandooy jiite leen ñoom it daal daa mel ni fan nii ñu ngi doon réunion di def seen bilan maanaam daal di wax nañu doxale at yi passé ak nañ bëgg a doxale ci jamono yi nga xam ne moom la mu jëm kii moom noppi la def maanaam jàpp boppam muy Fallou Ndiaye daal yëglikaay bi ca tuuse xamal nañu ne gëjës na koo dégg mu wax wala mu def maanaam daal mu nga noppi jàpp boppam suñu làmb xëy ñëw mel ni ki noonu ba tey bu ñu continuer ci yëglikaay ba ñëw na ci tey Malika mbooloo ba nga xam ne ñoom général Malika ñoo ca ne ñu ne leen nag seen résultat nii la tëddee sept victoire cinq défaites la Malika mbooloo daal di def général Malika moom jotu bëree moom ka may xaar ba tey daal mooy mag ka nga xam ne moo di fils de balle seenum ba moo fa jaar ba bëriwun ko mel ni ki nag booba boo bëggee dégg daal mbir ya am na ay ñàkk nuroo yu ca am ka nga xam ne nag moom moo di uncaa itam moom ay toxalinam boo xoolee maanaam daal dafa renversé wu maanaam lii daa mel ni la ca des mel na léegi Kabila moom ca tuus ba la toog maanaam gisul combat bulldozer ak ka nga xam ne moom moo di caatu saf ak ka nga xam ne mooy booy buuba ak lakkantaan moom assuré nañ la nga xam ne nii moo di liggéey ba maanaam daal liggéey moom def nañu ko waaye ki nga xam ne nii moom moo di Pape Sembène di seenam coach moom mu ngay wax ci résultat nga xam ne am nañu ko ren muy boobu nga xam ne moom moo di Malika Mbooloo ba tey dañuy dellu fa nga xam ne nag moo di ca record kan fay fekki moom moo di ki nga xam ne nii mooy bukki moom ren benn galaa jot a am am ca neuf cent cinquante mille maanaam ak lu tollu ci juróom benn nag maanaam six ba loolu daal lal ki nga xam ne moo di bukki jot def ren waaye am na loo xam ne ni daal ngi koy fàttali ka nga xam ne nii daal moom moo di wala boog performance ba nga xam ne def na ko lul seeseen daal ne na loolu moom ren lu ko marqué la yemu ca am na keneen koo xam ne nii moom muy Cheikh Tidiane ñaa maanaam daal moom bukki jàpp na ne jàpp ne daal Cheikh Tidiane ne na maay bête noire am de maanaam daal fu ma ko fekk moom la ma ko bëgg a def dama ko koy def loolu la bukki xëy tey wax ko ci record asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk internet yi suivre Leewtoo TV di nuyu di leen ziar comme ni ngeen ko xame nag ak revue de l'arène bi maanaam jàng yëglekaay yi ci wàllum làmba chaque jour dañ leen koy tàmm di leen ko defal ah di leen nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen waa tey nag mu mel nii Babacar kese ngeen gis li ko waral nag mooy sama jigéen ñi muy Aïssatou Faye madame ñaa ma koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm yaayu paate ak njaga maa ngi koy ñaanal jàmm bu baax a baax moom it mook Ndey Kumba faal naar bu xees borom Mauritanie la Mauritanienne dañu nekk nag ci ay noppalu loolu tax fan yi du ngeen leen gis waaw mais maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu Ndey Kumba faal di nuy doomu Mohamed Diouf ak suñu yaay mère Sow ñaanal ñëpp jàmm di wax ka ni tamit Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm nawet bi ñu dugg bismillah rahmaani rahim comme ni ñu koy ñaan rek yàlla nañ ci génn alhamdulilahi rabbil alamin te lépp lu ñu ci béy yàlla def ñu muurloo ko barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di leen nuyu yéen ñëpp di wax nag ne tey moom comme ni ngeen ko rek tey ah, sunu làmb fay tey ñëw na ci xëtam mu njëkk moog record parce que mën nañ ko sax bool parce que li tax mooy tafaatin diggante ak Pape Thialis Faye wala diggante ak waa Leewtoo production nga ci wax joo xam ne xëy na seqoon nañ ko ci combat buñ siiwal te la la am mooy la war a yegg ca mbër ma yeggul muy xaalis ak yu mel ni ki doon ba indi ay coow fan yi ku nekk wax tafaatin nag mel ni moom moo génn tey wax ne moom mii dugg ci géew bi di bëri des na ko dégg fan yi mu wax waaw maanaam des na ko dégg li ci liñ ci mën a wax nag euh, euh, ba tey buñ demee sax record dañ fay fekkaat wax ju mel noonu parce que ba tey tafaatin yëglekaay bi ñu ne ne moom dañ ko jox 5 millions mu rejeté ko maanaam 5 millions daal lañ ko jox mu ne du ko jël moom tafaatin record ñu wax loolu te yemu ca itam ne nañ giri comme bàyyi na Gaston ah tafaatin di menacé di menacé waa Leewtoo mel ni kon comba Boy Niang ak Balla Gaye ba tey lu possible lu war a mën a nekk la dàqeesu ko wax li ci am solo nag ba tey record itam ñëwaat na ci diggante Modou Lo Balla Gaye ñoom ñaar ku ci ne sa combat nañ ko te ka nga ko seqal bu dee Modou Lo digganteem ak Ama ne nañ Ama encaissé na 25 millions Tapha Tine wala boog Balla Gaye digganteem ak Gris Gris encaissé na 10 millions te ñoom kenn encaissé gu ci te kenn déggu leen ah wax nag mooy bu dee ci diggante Pape Thialis Faye ak euh, wala Leewtoo ak Tapha Tine la mu waxoon rek laay euh, continuer di wax ndax dëgg du romb ay nopp bu fekkente ne yow danga di promoteur ñëw ne da nga bëgg a tëgg làmba woo ñaari mbër waxtaan ak ñoom ngeen déggoo la ngeen déggoo nag yéen ñaar a ko xam ak yàlla ak staff ba bu fekkee da ngeen déggoo nag ci nga war ko jox xaalis ci benn temps ah bu fekkente ne loola yegg ngeen ca te loola sottiwul la nga ko war a jox la am solo rek mooy yéen ñu ko seqoon ngeen toog waxtaan régler anglais comme ni ko tubaab di waxee pour nga ngeen problème bañ a am waaye nag li dul mën a nekk wala li jàpp li ñu jàpp ne su nekkee itam coow lay indi mooy nit ki nga wax ko ay wax ba pare bés ba jot wax ja sottiwul te itam waxu ko lenn lu leer wala nangam lool mën na indi ay diggante loolu ci diggante Leewtoo la ñuy wax ak Tapha Tine naa li ci am mooy li war a am daal mooy. nañu xool ñoom ñi ko seex parce que ñoom ñëpp ay kilifa lañ muy tafaati nag ña ko yor muy Pape Thialis Faye ak waa Leewtoo nañu toog ñu waxante li mën a ne bu fekkente ne dafa am mbir mi blocage bu ci wala benn gàllankoor ñu leeral kon nañ muy lu leer ci seen biir bu ko defee ñu mën avancer mën a dem parce que nag euh, olof ne na bu ndox tuuroo an baax a fa des waaye dañ ne kon est-ce que duñu rootiwaat kon nañu gën a waxtaan yaa ngi dégg ba tey record tamit tafaatam la mu wax moom ne na moom des na ko dégg ndax moom mooy bëri effectivement yaay bëree yaay mbër mi yaay wàcc ci géew bi loolu moom am na fay xaalis bi tam bu dee 10 millions lañ la fay exemple kase defe naa ne la ci ëpp ci sa dem keneen koo cay jàppale nga jàppale ko ak la ceegri bi war a am ak naa ne kon moom it ah dinañ ko dégg waaye ñun dañuy rek que ni déggoo am fa ba combat ba mën a continuer buñ ñëwee ci record tamit ci mbir yooyu lañ jël Gris Bordeaux bàyyi Gaston tafatin menace waa Leewtoo combat booy ñaan dafa Balla Gaye c'est possible ah waaw tout est possible lépp mën a ne waaye dañuy ñaan rek la ñuy ñaan ñun Tapha Tine ak Boy Niang ba waa Leewtoo déclaré yàlla nañ ko tëgg Gaston Mbengue la mu déclaré muy Gris ak Balla yàlla na coow la jeex ba ñu mën a jéggi lool ba tëgg combat ba ci Gaston ci compte Gaston Modou Lo ak Balla Gaye yëglikaay bi ñëw na ci ñoom kani ñoom boo xoolee ci coow loolu seeni turam ci biir ndax ku ci ne am nga ci adversaire muy Modou Ama Balla Gris te ñoom kenn déggu leen yëglikaay bi nag moom moo jàngat boobu jàngat ka ko def mooy Abou Ndour maanaam kenn déggu leen Modou Lo sax ci liñ ko mës a dégg record xamal nañu record la ko waxee na moom saa yuñ ko nee kaay bëri ji moom day wax na ne ñoom ñu ngi déglu Gaston Mbengue moom la ñu amal wax moom la ñu signal kon ñoom ñu nga ca Gaston ba suba doon taxay na am na lu leen bëggoon jox ñu ne ko nañ bàyyi rek ba mu mat kon mu mel ni kon foofa itam la fa wax ne mooy mbër yooyu moom waxuñu Modou waxul Balla waxul maa ngi dégg ah li ci am solo nag mooy nit ku ne du ma ne tey la Modou attan wala la baal Balla attan moom la Giri attan wala moom la Tapha Tine attan non non non ku ne da am staff am attitude booy doxale am noomel loolu moom laa mën a wax ci mbir moom mais di ñaan rek jàmm mujj ci ba ñu mën a bëre wala bokk ba ñu mën a bëre yooyu komba loolu moo am foofu bu nu fi jógee te ba tey bu nu continuer tamit ñëw ci mbirum CNC beeg Aline Sarr xam ne moo doon assisu 2018 ah, waxee daal foofa lañ ko mujj suulaat maanaam ah, ne kon xëy na dañ ko waxoon te pare boo ko mën koo wax olof wax loo mënul waaye def loo mënul moom moo jafe muy lu yéeme Ariel ñoom ñooy association bi nga xam ne ñoom ñooy école yeeg yu mel ni ki doon écrit yi te Malick ñu ngi jiite leen ñoom mandat bi daal liñ ci gis mooy ñu def ko ñaar ñaari at ñoom loolu la ñuy wax waaw muy loo xam ne daal lu lu seen xalaat la ñoom itam bokk ci biir ñuy nuyu seen président Malick Ngingue suñu papa Maxime Bergane tamit di directeur technique u Lansar di mën a si moom jàpp ne texte ko xoolaat ak équipe bii ñëw waaw wax na dëgg parce que bari ci yoo xam ne nii sortie de libéré yi côté licence yi yu baree bari daal war naa xoolaat ba nga xam ne nii bi yoon bu ñuy defaraat moom li ñu jàpp ne baaxul lépp ñu la moom ci guy gi la xëy nee nag lu man te xew moom xam naa ay faible ay ay foram xami faiblesse am waaw loolu gis-gisu Reug Reug la waaye li ma xam daal man ci sama gis-gis mooy que ni di ko xamal ne am na adversaire de taille muy guy gi ndax guy gi ci làmb am na lu mu ci wane ba tey tax niveau bi mu yegsi mu yegsi fa kii yëg Reug Reug nag wala ki yëg Reug loolu kenn dootu ko présenté ndax li tax mooy dafa wane ña ko boppam ci ñaari boor dafa wane boppam ci li avec frappe kenn daanagu ko wane boppam ci lit def ci loo xam ne ñu yàgg seetaan lit lu jiitu ñun suñuy at sax jàpp nañ ne gisuñu mbër bu mel ni moom kon loolu moo lay wan ne kon daal boobu combat dana neex te dana yëngu ñu ciy nuyu waa GFM général Malika moom ak écrim ba nga xam ne moom moo di fa nga xam ne mooy Malika mbooloo ñoom it seen 7 victoire ak seen 5 défaite mel ni kon seen mbir xaw naa tët xaw suuf combat yi nag daal ñu nga fa ca écrit ba di wane seen bopp loolu nag mooy liggéey bi nañu liggéeyaat rek waaw wax na affaire yi moom waaw bu yà boo xëcc xëcc bu daggul la bu yàggee rek day dikk waaw gis nañ tamit ay promoteurs yoo xam ne nii waa wala boog ay combat yoo xam ne nii ñu ngi ci taxawal ko bokk na ci ki nga xam ne moom moo di jamaïcain ak combat boo xam ne taxawal na ko muy combat espoir xam nga muy amee ca Gambie loolu tamit ñu ko ci muy di ko ziar di ko ñaanal jàmm ak euh, waaw parce que moom it xale la ko xam mu ngi bay waaram keneen koo xam ne bukki lañ koy wax bukki moom li ñu gis mooy moom ren benn galaal la jot a gane am ci neuf cent cinquante mille ak juróom benni nag loolu la jot a am ren waaw di fàttali moom la ko neex loolu muy ndam la nga xam ne wala performance ba mu def lul seeseen ak ka nga xam ne nee na bête noire am la muy Cheikh Tidiane Niang mel doon wax rek mu ngi dox wax dëgg yàlla macha allah ñaan yàlla mu gën a dox rek ñaan yàlla corona bi jeex comme ni mu ngi wàññeeku ba nga ne sunu làmb dina mën a continuer activité addina bi yëpp mën doxaat pour que addina bi gën a mën a marsaat bi ñëw xam nga loolu dañ koy ñaan di ci jiital tam sunu réew mi nga xam ne amuñu lu dul moom muy Sénégal di fi yeewoo di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ne ko rek naka maam Abdou Aziz waxee woon da baax yàlla na yàlla tàppe xol yi te gaal gi nee na boo ci nekkee bul ñaan sa ëmb mucc mais ñaanal yàlla gaal gi mucc nee su gaal gi muccee yéen ñi ne ci gaal gi da ngeen mucc ku ci sa ëmb mucc kon yàlla na gaal gi mucc yàlla na àddina mucc bu ko defee ñun ñëpp ñu mën a mucc barke nabil Mustafa sallallahu alayhi wasallam di ziar internautes yi duñ leen mës a fàtte ñun ñëpp fu ci waay nekk di ñu ku di commentaire vidéo yi di ko seetaan duñ la ma sa fàtte waaye Ndongo Fall maa ngi koy béggee di nuyu Saliou l'international di wax ne démb da doon tudd bébé ca France ñu ñaan yàlla bébé boobu yàlla na ko yàlla def magum l'islam xam nga di nuyu itam Youssou Ndoye sama l'international ba nga xam ne signé na bu yàggul contrat ak waa Séville di ko ñaan yàlla mu réussir foofu ca Espagne Saliou Khoule Zik FM maa ngi koy nuyu di nuyu waa groupe baax maa ngi Sora Malick borom Lamsaar ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee Badara borom cuuraay li Massa Salem ah di ko nuyu di nuyu laay bu Faas sëñ Xaadim xam nga séeri maaram xaadim dia maa ngi koy béggi bu baax a baax a baax a baax waaw kooku soppe xarit la awa Diop Touba moom tam du ko fàtte benn yoon maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ñëpp ñëpp ñoo xam ne daal ñu ngi suivre calki bu Balla Gaye de moom tamit maa ngi koy bu baax a baax Barcelone bi di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp di ñaan senegal yàlla na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi